moom moo génn àddina 1995 seen wayjur bu baax wa Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy moo ñaanoon ñu denc ko fii euh, tabaarakallahu Thierno Mountakha Ahmed Mountakha Cheikh Oumar moo ko jullee waaye keroog boobu baayam di Mourchid Ahmed Iyane Thiam moo amee woon dëj bi yëpp keroog boobu Bachir jaañ Marème Diop grand serigne de Dakar daanaka réew mi yëpp ñu ngi fi woon kon fa tabaarakallahu fi mu ñëw këram la góor gi mu ñëw. ne ba may tàmbalee samay mbir campagne bi li may def mooy dem ci sama raw rawdu baay jàng lu fa kaamil sàkku fa ñaan <coughs> ñaan ci barke maamam yàlla yombalal ma li may wut loolu li ko war la loolu la def ndax dafa ñibbi këram kon nag ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam yàlla defal ko xéwal yàlla defal ko sutura ndax nit ku baax la nit ku am yar la nit ku am teggin la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jàngal ni nekk kilifa du la te am jikko yar ak teggin ndax yonent bi nee na addabani rabbi fa ahsana bi yàlla ma yar rafetal sama yar yàlla ma yar ma yaru bu ñu ko xamee ba tey mësuñu ko dégg mu wax ay mots yu lépp lu muy wax mu ngi koy wax ci yar ak teggin ndax kat baayam dafa am fu mu ko tegoon mu nekk xaritam muy ànd ak moom fépp te ku xam baayam xam ko ci diine ni yonent bi moo ne utlubul xawaaija bi izzati nafsi lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci yar ak ci teggin moom noonu la koy defee waaye jumaa ji tamit bàyyiwul ba soxla di fi ñëw déedéet gis nga mur de clôture bi karo yi yëpp moo ko jënd defar ko ngir jëmm yàlla musu ko wax amul droit wax ko waaye ñun itam amuñu droit noppi ca ku def lu baax na ko seedal te yàlla tax ndegam nit bu defee lu ñaaw ngeen xas ko waaye nit bu defee lu rafet nee ko jërëjëf kon nag ñuy ñaan suñu borom fii mu ñëw ci néegu yàlla bi fekk fi imam Mawlud Sow nga xam ne 45 ans mu ngi koy jiite jumaa ji di jullee néew yi di takk sëy yi di tudd doom yi di taxawu jaamu yàlla yi Mawlud Sow de nee na barki démb rek laa jóge Faas ca raw du Cheikh na Matijani waaye lu ne def na ko ci yoon wi mu ngi ñaanal doomam ji tabaski kuy taxawu ay imma yi fi nekk yëpp muy imaam yi fi nekk yëpp ci ay xaru julli di taxawu jàkk yi di taxawu jumaa yi te nag nitu diine ku taxawu diine mu taxawu la ñuy ñaan suñu borom yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla dimbali yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla sàmm ak ñu mel ni moom ndax kat réew mi soxla na ñu mel ni moom yal na ko yàlla dimbali yal na ko yàlla jàppale loolu moo waral ñëpp a ngi koy ñaanal. kàddu jàmm yi ngay yëkkati ko ci naataangoom yi nga xam ne dañuy battre nañu xool ci moom rek exemple la mooy looy wut rek wut ko ci yar ak ci teggin ndax lu dul jàmm jàmm ko gën. ndax seen maam borom tuubaa nee na jàmm gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fee jàmm la ñuy ñaan ci kaw suuf jàmm la ñuy ñaan boo duggee biir bàmmeel waaye boo dekkee jàmm jàmm nag dafa soxloon yonent bi ba musaana julli ba sëlmal li muy njëkk a def bu tàllalee loxoom yàlla jàmm la koy ñaan allahuma anta salaamu wa minka salaamu wa ilayka yaudu salaam tabarakta wa taalayta ya zal jalali wal ikram jàmm nag boo jëlee sa kurus naan yaa salaam ya salaam dox fii ba aéroport Blaise Diagne te yéene woo kenn salaam doo am salaam jàmm ni ngay tuddee turu yàlla naan yaa salaamu da koy dund ci sa biir xol di ko dox waaye itam di ko def yàlla nañu yàlla dimbali ndax réew mi dara xaju fi lu jul jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira jërëjëf